dal leen ak jàmm mbir mu doy moo xew ca Touba benn xale bu jigéen di doom ci ab sëriñ bu siiw foofee ca Touba moom la ñu publier ay photom ci internet bi ca photo yooyu nag mu ngi ca mel melokaan bu doy waar daanaka jëre ya mu sol awram yépp ñu ngi ci biti mbir moo moomu nag ñu cay taqal ñaari soxna yoo xamante ni kenn ki mu ngi wuyoo ci soxna may mbay keneen ki di wuyo ci ay satu Gey ñu gën ko xam ci turu jee màkka dañ leen di digtal rek ñoom ñaar seeni conversation yi nga xamante ni def nañ ko ci réseau social WhatsApp. allo. Macky Wala. maa ngi fi ak jàmm. wallaahi alxasim mi de wóor na Serigne Touba ak ma am lu ma naqari. xam nga lan mooy sama problème. papa dafa maa woo léegi téléphone. fekk fekk naa ay appel yu dul jeex. mu ne man daal dama am ay tool dem am lu ma lu ma tëlfate ñu ma dégg ci ay photo mu ne xaaral maa ma ne xaaral ma ne ma ne teg sa sama papa li tax may de musuma woo ma ne xaaral ma woo téléphone foofu ma koy ma ni ma wax tey si suba fekk dama laa ko woon na ko ah daf maa woo léegi ne photo mi dañ ko wax ne ko mi ngi commencé tasaaroo moom xanaa danga ko ci wax dara mun ko wax ma ko ci wax dara mun ko wax ma ko ci dara de mu ko ci woon wax dara de mu ci dara wax ma may bu ma nëbbu wax ma ba xam danga ko ci wax dara mu ne ko man ko muñ ba sonn mootuma ko muñ ma woo ko téléphone wax ko ndax comme doon yow di yow ah. mu ma wóoroo ko woon wax def nga erreur ah. ndax li tax wóoroo ko woon mooy ah. buñ fa toogee ñun ñaa nga toog di wax te boobu bari nañu fa toog kon lu mën a xew wutu woon njëkk jigéen sa gémmiñ ma ne ko su ma waxee dëgg ne mën naa koo téye mënuma koo téye damay fen rek ndax àdduna jigéen ku nekk jigéen nga te yàqu bu jigéen dafa yomb mu kon dangaa jël sa responsabilité bopp yaa xam ne kon loo si góob nga gar ko. Mm. waaye nag soo maa yow moom personnellement comme que ban ko ban dee wax di yàq der mbàkke mbàkke yi wax nga fa sa lu baax ndax sëñ Tuubaa ba nga fa paree rek waru foon a waxaat dara. ma coupé rek sama papa woo ma téléphone. Mm. ne ma yow boobu rek maa lay woo juloo mm. ma. maa ko man dama ansi boobu rek dama tëdd di nelaw dama naan ay garab yi nelaw di nelaw. ci la ma expliqué ne ma sa borom kër da doon bëgg. loolu de mosuma ko yëg mu ah sa borom takk bi loolu ko dégg ki ñuy wax sa borom kër daf ko doon bëgg dama waxtaanee ba koy waaj takk moom mu jël ay photo yónnee ko yooyee sa borom kër yónnee na ko xaw ma yow yaa ko jël sa borom kër nga tasaare ko fekk na wallaahi xasim démb ba léegi dugub dugub sama gémmiñ gi ab ruy bi moo ruy léegi ma yow bëgg koo naan mi ngi nii ma teg mënu ma sax lekk wallahi xasim ma ne ko foto sa yi ma jël ci sama borom kër mënu ma bu def noonu man dañ maa wax rek moo wol dina laaj ma ne dara ma ne ko man kay woo naa ko mooy ma lu tax lu ngeen ko seqal moom ma di ko woo ndax dégg na nee na da nga koo woo di ko menacé woo nga fi ba ngeen di ko menacé dañ ko wax loolu de yaa dégg. allo waaw léegi xanaa war nga xam ne man bi nga xam ci suba ba léegi ah. Mhm. benn appel jëlu ma dama la wooyee noonu ba coupé noonu noonu. Mhm. amul ku ma wuyu woon appel am fekk sama téléphone dama fekk ci ay ma nu mu toll. day mhm. dégg ma jaaxle bu bëgg a dee ma soxla may xanaa am naa beneen problème bu dul naan kii moo def lii wala kii moo def lee te it wax dëgg yàlla ba nga gisee ah. nga nga téléphone nga woo ma. xam nga nga nga avertir ma wax ma mais pour man nekkut loo xamante ne si nii day dem fenn wala yu. day dégg xam nga moo taxoon tax boo gisee envoyé waatuma la message tax naa la vidéo bi wala nangam tax loolu moom. gis boobu. mais boobu ba léegi barke Serigne Abdou Lahad ma yaakaar maa ngi fii ma tëdd ah. Mm. du añ du reer du dara barke Serigne ni Mbacke. gis nga nit ñi di ma woo fu nekk xaw ma sama téléphone bi naa ma def def ko nga ko xool léegi léegi. doon ah, ah, la ma ne ko war ne xam bi ma lay woo xam nga junj benn borom xel. Ah. ndax man nee naa te lii sax wax naa ko jéem ak ne ko. tax dina xam fi mu def tànkam te dina xam ñi mu daan waxal dina xam ñu muy waxal ak ñu mës a envoyé te yow bi ma la wooyee waxuma la ko nee la su lii jàllee message jural sa bopp. nga xool ñi ngay waxal xool say contact xool ñi nga war a waxal. léegi bi sama papa. conversation whatsapp yooyu ñoom ba léegi ñi ngi expliquer naka la mbir mi demee dëgg-dëgg. doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne fii ci Touba ñoo ngi koy waxtaanee ndax mbir mi dafa garaaw mbir mi dafa doy waar dafa am ñetti nit ñoo xam ne instant bi may wax ak yéen ñoo ngi ci kaso bi kenn ki ma ngi ci kaso bu rëbës ñaar ña ay jigéen lañ ñoo ngi ci kaso bu camp pénal léegi lan moo xew euh, li xew mooy xam ngeen ne fii ci tubaa am na benn pharmacien bu mag bu tudd Moussa mbay Moussa mbay jàpp naa ne kenn du ko laam-laamee fii ci Touba ñëpp a ko xam Moussa mbay moomu nag jamono ji dañ ko yóbbu ci kasu bu rëbës même Moussa mbay doomam bu tudd euh, May mbay ma ngi ci kasu bu camp pénal euh, jee màkk ma ngi ci kasu bu camp kan mooy jee màkk jee màkk xaritu May mbay la may mbay mooy kan doomu Moussa mbay la kan mooy Moussa mbay pharmacien bu mag la bu ñu ràññee fii yu ñett ñépp jamono ji ñoo ngi kaso lan lañ def bañ yóbbu leen kaso euh, ñett ñi nag Moussa Mbaye ma ngi ci kas bu rëbës moom ngeen di gis ni ñaari jigéen ñi mooy may mbay ak jee màkk ñoom ñaar tamit ñoo ngi ci kaso bu campenal ñoom ñett ci commissariat bu palaato comme commissariat bu plateau sa Dakar fa lañ leen doon entendre mais lan lañ def moom laa leen di wax wala lan lañ leen di tuumaal ay bés yi ñu génn maanaam semaine yi ñu génn euh, dafa am benn benn soxna benn soxna boo xamante ni soxna su Mbàkke Mbàkke la fii ci Touba waajuram nekk kilifa gu mag soxna soosu soxna su Mbàkke Mbàkke si ay photoom euh, dañu ko gis ci réseaux sociaux yi mu nekk photo yoo xam ne photo yu doy waar la photo yooyu dañ see joxar bi baaraamu tuuma ne may mbay mii ngeen di gis ak xaritam bii di jéem màkk ay complice lañu ñoo jël photo yi wasaare ko ci internet bi te mu nekk photo yoo xam ne photo yu doy waar la euh, may mbay mi ak jéem màkk ñoom lay yoon njëkk a teg loxo ginnaaw bi soxna si mbàkke mbàkke si porté plainte mais soxna si mbàkke mbàkke si tamit am na yeneen mbokkam yoo xamante ni taxawu nañ ko ci mbir mi ndax euh, soxna soosu am na lu ko naqari ay mbokkam am nañ lu leen naqari bi ñu gisee photo yi ci internet léegi ñaar ñi bi ñu leen téye ci commissariat bu palaato di leen enquête di leen laaj enquête bi li mu jot a wane ak li si jot a xam ni xibaar mooy mbirum règlement de compte maanaam may mbay mii ngeen di gis moom lañ tuumaale moo foto yi bi ñu leen déglu def leen garde à vue Moussa mbay moom tim baayu May mbay dañ ko woolu pour déglu ko bi ñu ko dégloo dañu ko def moom tamit garde à vue ndax dañu jàpp ne laale na ci mbir mi léegi nan la ci Moussa mbay mën a laalee doomam ji di May mbay laale ci lan moo lié May mbay ak Moussa mbay ci photo yooyu ak lan moo tax ñu siy tudd réglement de compte li tax loolu ak li ñu jàpp mooy Moussa mbay mi fan yi ñu génn wala semaine yi ñu génn wala weer yi ñu génn dafa amoon ay kàddu yu ñàkk worma yu Moussa Mbaye yëkkati woon teg ko ci genn kilifa gu mag fii ci Touba kilifa googu Moussa mbay waxoon kàddu yu ñàkk war ma yooyu bañ tegoon loxo Moussa mbay ba Moussa Mbaye di jéggalu kilifa googu la doomu Moussa mbay jël fotoy doomu kilifa gi ci li ñu wax ci xibaar tasaare ko ci internet bi lii moo tax ñenn ñi njortu règlement de compte ndax xale bu jigéenu mbàkke mbàkke bi waajuramu góor moom la Moussa mbay waxoon kàddu yu ñàkk war ma bañ teg ko loxo bi mbir moomu jàllee nag doomi Moussa mbay moom lañ tuumaal ne moo jël photo yi doomu kilifa mbàkke mbàkke gi Moussa mbay waxoon kàddu yu ñàkk war ma yi tasaare ko ci internet bi maanaam dañoo njort ne doomu musaa mbay day fayul baayam mbir mi garaaw na genn xeetu garaaw goo xam ne fu waaye natt paase na ko jamono ji nag Moussa mbay ma ngi ci kaso bi doomam May mbay ma ngi ci kaso bi jee màkk mi nga xamante ni xaritu May mbay la moom tim ma ngi ci kaso bi léegi nag mbir mi dafa des lu garaaw a garaaw a garaaw lu mu ci mën di doon soxna May Mbay ay Aysatu Gëy ak Moussa Mbay li leen yoon di toppe mooy diviser données personnelles jàmbur maanaam xaawi suturee jàmbur jël lu ci mel ni image wala ay vidéo jàmbur nga diffuser ko ci internet bi looloo tax ba yoon ne leen benn atu kaso boo xamante ni juróom-benn weer ya dañ koy tëdd ci noonu nag la photo yu ñaaw yooyu te doy waar daal di wër internet bi ba internet bu nekk daal ciy jot mu metti loolu ki nga xamante ni moo di xale bu jigéen bi nga xamante ni mooy victime bi mu daal di porter plainte foofee ca commissariat bu Dakar Dakar Plateau moom xale bu jigéen bi nag weddiwul benn yoon ni doon na séq ki nga xamante ni moo di xaadimu xuma ay relation amoureuse maanaam doon doon bëggante te photo yooyu yàgg na trop ca atum 2013 la woon waaye nag ci atum 2019 ci la ko jabari ki nga xamante ni moo di xaadimu xuma daal di woo téléphone rek xamal ko ni maa ngi yor sa ay photo yoo xamante ni yaa ngi ci def yaramu neen moom soxna May Mbay nag bi biñ ko introsé moom dafa weddi ba mu set wecci tuuma yi nga xamante ni teg nañ ko si ndoddam yooyu waaye daal yooyu mi ngi ko jëlee ci nga xamante ni moo di boîte Facebook jëkkëram bi di Xadim Xuma ñu ngi leen di jaajëfal fi la ñuy yam ak yéen ba beneen yoon yi